moo daan Malick Niang combat boo xam ne nag fa tubaab fa kàll ci la ko làmb gën a bàyyi xel mu dugg ci tournoi TNT bëri ak Tapha daan ko Ama Baldé bëri ci nga xam ne mooy Zoss daan ko daan ci guy gi kon ndaanaanu làmb la boo xam ni wane na boppam marqué na empreinte am tàccu leen ko sama gaay mbokk kon kooku mooy sël bu ndaw gaa ñu ne déedéet sël bu ndaw màgg na ñu ñëw ci Modou Lo champion boobu nga xam ni boo ne Modou xel yi ne roc des parcelles boo ne Modou xel yi ne xarañ ndax la jom ga jàmbaar ga ñeme bés ak attan bés. parcelles it làmb am fa cër ndax suñu papa Manga deux champion bu mag boobu nga xam ne ñu ngi koy jox cëram ak wàcc waayam parcelle làmb am fa cër ndax suñu papa Azraïl Ndiaye ñuy jaar ci moom nag di nuyu ancienne gloire yëpp. ndeysaan ak Birahim dafa am lu dox suñu diggante lu bari ndax dañu jaar ci yoon boo xam ni bi ñuy jéggi bukk yi sàngoo dëru bay di ñu fakkatal moo nu doon xàllal kon Baye Birahim yàlla yàlla guddal mu ñëwee ci làmb dafa dëggal boppam dafa daan Paul Maurice waa làmb bàyyi ko xel kii moo daan Tafa Boy Bambara Modou mii moo daan Balla Diouf Fer de Lion Modou Lo mii ndeysaan moo daan ki nga xam ni mooy Issa Pouye Modou Lo mii bëri nag suñu booy teere am ndam ci kawam mbokk yi Modou Lo mii na Eumeu Sène yoon ci làmb Modou Lo mii bëri nag Gris am ndam ci kawam kon roi des arènes ngi nii toog gàcce ngalaama tàccu leen Modou tàccu leen Modou léegi ne ko laay nga def lu rëy nag tëgg combat royal yow ak maak si dugg ndax nag Yaxya Yékini ni fi jógee ak Bombardier 28 mars la woon kon boo nu déggee le 13 mars suñu xel dafay dal ndax li nu naan bu siif neexul sipp li du mën a neex kon li nga fi indi woon fa tubaar fa kàlla sama ñaari ndaanaan yi muy Modou muy Ama lii la làmb bëggoon lii la làmb doon xaar bés bi tey jabatu làmb yëpp kontaan nañ ci ñoo ngi leen di daloo di leen bàyyi ngeen nuyoo di leen jox seen cër ak seen wàccuwaay Modou ñoo ngi lay nuyu ñoo ngi lay nuyu Modou kàddu gaa ngi noonu bisimilah. waaw aouzu billahi mina shaytaani rajiim ñu ngi sant yàlla di julli ci yonent bi di gërëm di waajur bi ci yàlla guddal fanam dafal ko wér ak waajur yi fi nekk sama waajur bu góor jiitu bu ñaan waajur bi bi des yàlla guddal seen fan di nuyu Sénégal yépp nag di nuyu assistance bi di jiital ci néew bi père Manga 2 di nuyu Luc Nicolaï promoteur bu mag bi di nuyu les sages di nuyu amateurs yi di nuyu tey plateau bi dafa riche parce ku nekk ngi fi di nuyu communicateur yi di ko di teg nuyoo bi ci loxo suñu papa Khadim Samb di nuyu suñu mbokk leader en activité yëpp yu fi nekk di nuyu kër kilifa diine nekk Sénégal yëpp ku ci nekk sa trop sant di nuyu 14 régions Sénégal yi di nuyu waa diaspora bi di nuyu parcelle 1 ba 26 di nuyu tamit ñu ma ànd ñëpp ak waa Dak Énergie ba ci kanam incha allah. ñoo ngi lay jox kàddu gi Ama Baldé salaamaaleykum. maa ngi sant yàlla jëm si yonent bi sant sama ñaari waajur ñaan sama papa yàlla ko suñu borom xaar àjjana ñaan sama yaay yàlla ko a fekkee sama njëriñ ñu nuyu sëñ Karim Mbacke bu baax baax sant sëñ Abdou Karim Mbacke baax a baax sant sëñ Abdou Karim Mbacke bu baax sant njaboot sëñ sant suñu acteur Mbacke suñu tàqu suñu aafiya sama njaboot suñu Fallou yëpp di sant suñu Saalu Mbacke bu baax a baax maa ngi sant ak suñu Saalu Mbacke maa ngi sant ak suñu Saalu Mbacke di sant sama papa yi fi nekk ñëpp maa ngi sant plateau di nuyu sama adversaire maa ngi ko ñaanal yàlla suñu borom defal jàmm di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal sama doomu nday Mara Sora yàlla ko suñu borom defal jàmm maa ngi ko ni nga ko bëggee woon muy roi des arènes maa ngi ñaan yàlla ko suñu borom moo tax jërëjëf ama daje bi yàggoon nañu ko bëgg mi ngi soog a am tey looy wax Modou ak Néga sa doomu ndey ñi la ko bëggee woon roi des arènes nga war a bëre combat boo xamante ni roi des arènes nga ci war a tajeel wàccaay bi ak foo ci waa waaw champion moo dama koy sant bu baax a baax dama koy sant bu baax a baax dama ñaanal jàmm xam na xëy na rek la mënoon demee. boo ko yàggee topp yaakaar bu njëriñ la mën a demee waaye nekk man noonam nekk sama noon du ma ñaanal yàlla ko suñu borom defal jàmm du ma ñaanal lépp lu bëgg si làmb yàlla ko suñu borom kàtt na dooleel ko ba bis maa jàmm xam nga di sant bu baax a baax di sant nag bu baax a baax di sant nit ñi walaay baax a baax di ko ñaanal jàmm di ko ñu mokk ñëw si góor tey li ñu soko li ñu ñëpp li nañ bëggoon di ñaan yàlla na jàmm yàlla di ñaanal yi yàlla leen suñu borom may ndam suba bu neexee yàlla ñooñu ñaan yàlla leen suñu borom may ndam jërëjëf. amaat boo ko yàggee toog yàgg koo bëgg ba war a dajeeg ba la ciy xaar ak loo ci war a jëf. waaw loo ciy xaar xam naa ko loo ciy xaar xam naa <laughs> doomu champion la xam na ñu ñaan yàlla nañu si borom dafa jàmm. doomu champion war a bëreeg champion. waaw champion la xarañ la champion loolu it la xanaa maa ngi koy ñaanal jàmm ñu ñaanal sama mbokk yi. ñaanal waa Guinée bu baax a baax di leen woo Sosson Ba waa Guinée waa Sindia Ousmane waa Seydou Sebe Xonka Yoroba Kounda xam ne maa ngi gërëm ñëpp di gërëm waa bu baax a baax a baax di gërëm nag waa wal jaxal sama dëkk bu baax a baax di gërëm waa Jolof maa ngi bu baax a baax a baax fépp pulaar nekk rek xal pulaar nekk rek maa leen woo sama combat yi ñu gis ne Modou Lo bi combat bi terew ba léegi génnul benn yoon Sénégal mi ngi Sénégal di préparer combat bi ñu jekki-jekki am fi combat bi toll Modou sàq dëggu France tey lay dëggu ñëw Modou loo yëg ba tax nga daw ci doole bi kat waaw salaamaaleykum Cheikh Baye maa ngi lay nuyu di wax fi ñu waroon jiitu muy Lions yi war a football suba day ñaanal yàlla defal leen ndam parce que mérité nañ ko te Sénégal yi soxla na ko bu baax a baax day ñaanal ndam bu rëy rëy Sénégal yëpp tàllal seen loxo ñaan gaynde yi indi fii coupe bi incha allah waaw ni moom comme ni ñuy wax rek làmb moom duñ ci gan xam nga amaana prévision sax pour génn parce que combat bi xam nga ñu fi jaar feebar beeg yooyu noonu fii lañ nekkoon doon di contact yi def lépp lu war a def quoi mais comme toog nañ benn temps bu gàtt a dem motal yi ñëwaat rek loolu moo a ma laaj ah, wax moo war a nekk mbër moo xam ni dalaa ñeme trop danaa ñeme trop ñaari baat ñett ba sax keroog bi ñu waree daje ci arène nationale dafa ni Modou Lo su mënee na indi ngembam face to face bi ñu njëkk fi bëre bu ñu paree doo a bëri le treize. ñeme googu ama ñeme la jaaxaloo la tuuti. Ah, xanaa de kenn warul jël adversaire di ko ragal ah lu mu def loolu la war def rek xam nga waaye wax yu bëri jaru ko li ma ko tontu ci li mu waxoon dégg na ko. man nee naa ko sama oto foo ma fu ma toog rek ngeen moom sama oto moom laay toppatoo mais mais na ñoo ñu laal ko nii. ah. ah. ñoo ñu laal ko nii. ah man léegi dañ ko bàyyi léegi bi. ana waa CNG pare ngeen. non moom parewul moom parewul day soob rek day wax ni maam Serap gis nga wax dafa yomb. Ah ah. wallaahi wax dafa yomb. waaye la ci day toogee fekk sama ñaari jaaj. déedéet. déedéet déedéet déedéet déedéet déedéet ah la bu dagg na ma ne ma ne ay ta Modou waaw Modou Modou waaw waaw sama gars yi may leen ko may leen ko bu ñëw lekk na nit man mun ma am bis bu ma dépassé ci làmb bis bu nekk am naa ko li sax wax du moom moo may def loolu ma warul def wala mu wax loolu lu ma warul wax mais wax jii muy wax rek la am ci làmb bi wax jii muy wax la am ci làmb bi te yàlla yàlla may talak fekk ba le treize mars bi ngay mbapat ak Modou Lo doon ndaw nga bërek Modou Lo Modou Lo daan nga dellu sa kër janoog sa faalaay di jooy mu ne danga di xalaat boo màggee dana demee leneen tey jii ñu fas yéene daje ca arène nationale mu doonoon mu doon tey mu doonoon sa toolu papp gan jàng nga am ci combat bi ak fañ koy bëree. waaw dañuy ñaan yàlla rek yàlla moomu ci ndam dañuy ñaan yàlla yàlla moomu bu tëwal maas boobu muy wax yàggatul pour un mois moom des dañuy xaar ba le maas bi jaamu damay war sama barke sëñ Fall. laay. waaw mais damay kontaan doon roi des arènes damay xam damay doon roi des arènes pourquoi dama kontaan damay kontaan. waaw dama kontaan. damay kontaan damay doon roi des arènes moo tax ma kontaan. fu mu jëf war a wax amu fa yoon la tëddee dama soreetu li yàlla may talag fekk ba ñu tëj barrière yi nga xam ne wax ju bari yëngalu moom. amaa lay tontu foofu. amul lu may tontu moom le trois le treize mars lay tontu barke Serigne Touba amul lu may tontu bu rëdd yàlla baax na. moo Modou Lo ni mu nekkee roi des arènes ñëpp gis nañ takkusaan boobu Pikine la dugg jël Eumeu Sène daan ba yàlla buñ ko dundati ci àdduna mu métti lool mu jël roi des arènes bi yóbbu ko waa Pikine ngembal mbaa xam nga liñ fay fekk.

loolu laa la wax. boo si amee sa boo lay tontu foofu. soxla ma ko daanee kat at yi. non non kër bu soxla daanee suuf rek man. non non waxuma kat at yi dama ne su amee kat at yi sax dafa su ma amee kat at yi bu amee sama kat at yi. dafa wala may la soxla wala daanee kat at yi. noo ko soxla daanee moo dul. loolu mu këpp wala. may ma ma nuyoo Babacar Diom Babacar loo bëgg a laaj. <laughs> waaw Boubacar dañuy sant yàlla bu baax. te itam defe naa laajoon naa ko Moodu par téléphone dama ciy wax chaque jour rek que jëfee maa ngi leen ci maa ngi insisté parce que arène nationale bi ñu ko defaree ba tey. non maa ngi jégalu waaw waaw am am am dégg na sax li muy li mu ma bëgg a wax quoi Papa Ngagne maa ngi lay ziar waaw damay ñëw ci côté lamb ji rek ñoom ñaar parce que ñoom ñaar saa boo déggee ni ñuy waxante ñi ni moom am na loolu kenn waxatu ko. mais man fi may waxee mooy arène nationale Modou Ama comme li may wax rek suufa fa ne soo xam ne su bari la suuf soosu nag yow keroog nee nga ma géej ku fay entraîné loolu jaaxalul la Ama nee na ay toolu papam la woon te yéen ñaar Modou dama gis sa combat des fois mbër bu jógee jëm ci sa kaw yow mën naa am ay jafe-jafe Ama damaa gis yow mbër moo jóg jëm ci kaw andil ko ay jafe-jafe Modou bu arbitre soufflé Ama caravane si ñëw sa kaw est man que mën nañ fa xaar loxo am dóor mu daanu am fa wala daje bëre moo fay am ama est ce boo jógee jëm ci koo boo ko fa fekkee est ce que dina mën a attan la nga koy yóbbu loolu laa leen doon laaj ama li nga yóbbu ndax Modou dina ko mën a recevoir Modou li la ama di indi est ce que duñ ko mën a accueillir variation ci koom. lu mu fi indi fekk fa lu ko raw père maa ngi ñëw ci yow père toogal bul dem de. Fadam ñu ngi noonu Fadam maa ngi day nit a di sa góor na ma xam. salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu ñu ngi nuyu waa làmb yëpp di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu ñu ngi nuyu ahlu làmb yëpp di félicité Cheikh Fallou Luc Nicolaï ñun nag ci avantage u làmb la ñuy wax avantage u làmb moo ñu ci bàyyi diggante Modou Lo Ama Baldé boo leen tegoon ci balance instant yi nii ñoom ñaar kuy ëpp sa morom bu ko ëppee deux kilos ndax gis ñoom ñaar gis nañ ci ñoom mystique bu serein boo xam ne mën ñoom ñaar seen yaram boo xam ne liggéey nañ ko normal mais combat bi combat avantage la boo xam ne nii Modou daa am lu ci am Ama Baldé daa am lu ci am bu ci Ama Baldé bàyyee li mu am mën nañ koo lëng mu ñibbi bu Modou Lo bàyyee li mu am mën nañ koo lëng mu ñu di léegi lenn la ñuy wax Ama Baldé diggante moom Modou Lo gis nañ mu nekk combat bu ko jaral combat bu mu liggéey muscle boobu koŋŋ mais Ama li ma lay wax boo bëggee daan Modou Lo combat boo war a agressé nga war a bëri combat boo war a ñeme combat boo warta arrière combat boo xam ne waroo koo bëri ci lu romb cinq minutes combat boo xam ne da war a xeex normal am maîtrise ci coup bi nga xam ne ni tey jii moom waru laa mën a tee song muy combat bu gaaw bu rapidité Modou Lo li ma koy wax pour mu mën koo dégg diggante ak Ama Baldé bëri na fi combat bu nekk Modou Lo sa combat ak Ama Baldé il faut nga nekk ci à l'aise seet nañ sa début de carrière ba sa carrière fi mu yam combat yi gën a difficile ci say combat koo bëri te nekkoo à l'aise yi nga nekk à yëpp da koo gagné Ama Baldé tamit gis nañ ko mu nekk benn athlète boo xam ne nii ku mu agressé nga dëggal sa bopp am na mille chance pour àgg yow fu sori kon Modou Lo tey ji combat bi tey ji lu loo mës a bëri ci làmb loo mës a ci làmb tey jot na nga bëri noonu mooy tey ji nga arrière ci combat ndax nga mën a bëree combat à décision ndax tey ji làmb ñun fi ñuy waxee waxuñ lu neex nit waxuñ lii dañuy analyser il faut nit ñi xam loolu muy combat boo xam ne nii ñaari athlète la yoo xam ne nii bu combat bi diiree Ama de arrangé na ko 100 pour cent bu combat bi diwee bu combat bi lu mu gën a gaaw gën a gaaw arrangé na Ama Baldé ndax day bëri mbër moo xam ne nii loo ko wax ci biir géew doo ko fay fekk muy Modou Lo dafa ñeme waaye Modou Lo jot na tey jii mu génnewaat beneen stratégie day bëri xale boo ne ni tey jii ci ci làmb fukk ba mu doon ci làmb moom la Ama Baldé di indi ci làmb kon tey jii Modou Lo jot na mu bëri lecture ci combat asalaamaaleykum wa rahmatullah di wax rek moo bër la woon xam nga la ci wax nag waaye comme nekk moom arme booy yóbbu guerre moom defe naa yow lañu doo ko doo ko wax quoi te incha allah xam nañ lu ñu war a yóbbu ci bis ba incha allah te ñoo ci liggéey ñu ngi ko ama waaw dañuy sant Fadam rek moom sant la xam nga waxu champion la doo ko xeet dégg nañ wax bu baax a baax kon naa sama grand si lañu liggéey bu baax a baax di ko sant bu baax a baax Fatou jërëjëf. ah El Hadj Khadim Samb monsieur le maire maa ngi lay nuyu di la siyaare. maa ngi si turandoo indi abe mu toog 5 heures ci jàmm. nga seet ci les communicateurs ba jël Ndakaaru El Hadj Weesey Faye nga defal ko drapeau. El Hadj Sidi Lamine Niass keroog ba nga ko tuddee drapeau bii Màkka la ma jox ba bët setee moom El Hadj Sidi Lamine yàlla yàlla yokk leer. waaye Modou Lo yaag Ama lig sas na leen waaye KP sas na leen lamb jar na biir deux cent mille jar na biir cent cinquante mille jar na biir soixante quinze mille ndax ñaar ñii seen lamb du nii mooy lamb du ñëpp dem xam ni jël dana am bàndañ dogal yàlla incha allah da gis caxabal da gis sukkar bi da gis wéyale da gis kolma da gis lan waaye bubsu falay ba Jibril Niang Thiaw Mbao amatul lii falay bële naag Boy Niang lii falay bële naag Doudou Maka Sarr lii Modou Lo damaa wax ni làmb bi jeexee diggante Lat Dior ak Alboury Seynabou ak Birame Penda Ndiaye ma ci borom nga dimi ci gër ngeen ko remplacé làmb ba doon la daawu ko seetaan buur daa bëre amateur buur la daa doon géwél bi tëgg buur la daa doon géwél bi yooyu la daa doon bi xeex jeexee fetal jeex amaa làmb dellu ci waat loolu nga xam ne moom la la jor bëgg nag alkouri sa yëbu kon lig ñu ngi lay gërëm di la sant di la ñaanal yàlla di ñaanal suma ñaari doom yàlla guddal seen fan may leen wér fii ngeen dëg si Fall daf ma waxal ni ma lamb do lamb daan maas dadam tela te bu ñu demee tey ba yàlla suñu borom dogal Ama Baldé dab si Modou Lo ci làmb ji mu doon roi des mais boo doonul boo dëkkul champion doo doon champion kon combat bi li ma leen di ñaanal ngeen wér indi état amateurs yi sañse ñi mën a dikk ñi mën a dikk toog seen kër añ ba suur toog naan attaaya seetaan ko ndax kaapee moo ñu yéen Sénégal yi ak sénégalais yi maa leen may làmb ji kenn jënd loolu lu tudd loolu ñuy def mënuma ko wax parce que damay bañ a fekk dañuy enregistré ma ci ma yóbbu kii PPV PPV PPV amul ji ngay jaay da ngay añ ba suur naan ataaya taal sa télé foo nekk ci bi toog seetaan làmb ji rawatina diaspora bi kon ñu ngi leen di di leen sant di gërëm ancien boulevard yi di gërëm leader en activité yi di am tey mbégte bu rëy xam nga li may ñaan mooy euh, di jëpp képp koo xam ni supporter nga bu bëgg Ama Baldé bul indi xeex bul indi xuloo képp kuy supporter bu bëgg Modou Lo bul indi xeex bul indi xuloo xanaa xamul leen ne saa boo àndeek sa mbër di xeex mbaa ngi xuloo man ngaa xeex ci biir làmb ji nungu namam léegi-léeg nga ànd ak mbër bi dóor nit mu daal yow nga ànd ak moom fekk jënd boobu moom ko moom moom nga def ci biti <laughs> ah oui ah oui mais man nga football muus bu la trahir si nga football ko sa mbër am defet nga dóor gone gone bu doon traverse sa mbër am defet kon li ma leen ñaan xale yi mooy bés bu rafet ni taaroo nii KP di Sénégal 100 pour cent may ko Sénégalais yi feet la boo xam ni bii benn feet la war a doon ci Sénégal parce que xam ngeen ni bu subaa ñu dóor Égypte 2-0 bu ñu ko dóoree 2-0 bu soobee yàlla feet gi kii dafa juddu dañoo bëtal ngénte dañ ko bëtal le huit lañ dañu bëtal KPE le huit la ngénte li le Ba dafay ànd ak équipe nationale ak coupe mu ñëw ca mu nekk fête de la la fête des comptes ne Soukhane wal ordu aujourd'hui nag maa ngi préparé un discours solennellement bu di maa ngi fier aujourd'hui sur Demba Ka et Louis Nicolas parce que en 1900 le 2 février 69 Mbaye Guèye il a battu Robert un KO à stade fédéral 62 bi Falaye Baldé sa baay ji bëri Doudou Baka Sarr sànq course dañu bëri si stade nekk keroog Senghor ak dañ Bella ak Diouri dañu def feetu indépendance le 4 avril le 5 le 6 la ñu bëri fii César nekk tey keroog Faray Baldé dafa boon dun bëgg a saa ñu ànd daal ci biir saako yi keroog amuñu woon arène nationale ci ay Balla Senghor ak Diouri ak benn Bella ñu seetaan lamb mu fas tey ngeen di bëri ci stade 32 milliards sàmm leen ngeen mi ngeeg jomb jomb alaaji ngay yàq seen avenir laaj bi nag bu Euh, laaj bi sax Maximel euh, laay yóbbante waxam rek ama day sëkkatalaat te Modou bëggul ku ko sëkkatal ah xaw ma ndax day kor day kor Modou ama bu la sëkkatalee loolu laa lay naan bu ko sëkkatalee ah. may ma. mënut a ñàkk. ah. ma nga koy jëkkër. waaw waaw mënut a ñàkk. da nga koy jëkkër. ndox bu bàyyi yoonam xale moomul la. bu sëlee bu dara bu sëkkatee dina gis ko mënul gisee. ma ne bu sëkkatee dina gis ko mënul gisee incha allah. moo ngi dégg kay. dama ne la une minute trente senegal Sénégal ñëpp xam nañ ko loolu dafa leer une minute trente secondes ñëpp ko xam. Ah? waaw. Boubacar gis nga làmb ji ngeen naan dañ koy béy kenn du ko maye. aaren ba rek lépp ñu ngi lay nuyu. Euh, di la gërëm di la sant di la masawu. wax nañu ne làmb ji xaw ma naan déedéet ku ñàkk xam rek ñu doon wax làmb ji ne am ñàkk xam rek. ñàkk xam la. lii dab combat bi. am na la bëgg a wax Modou Lo. waaw Modou Lo dama koy sant bu baax dama koy sant moom wax dëgg yàlla. foofu rek a jeex. non naa ko man lu ma jaaxal booy bi dafay toog fii naan maa lay sant maa ngi lay sant maa ngi lay sant nii rek d'accord nga ci sant gi mu lay sant noonu. fii les deux signatures avorté ñuy nekk yee dafa daw dafa daw kon lan lay daw ci góor yàlla sama mu loo xoolal sa taayoo ko dàq ah dafa war a xoolal sa xoolal jàkkaarloo bi nii ah. ah. man maa ko gënoon bëgg tey wallaay naa azim sénégalais bu la tënkee dina ko bëgg xam nga dañ ko tënk fu mu nekk nii bëggul woon ñëw mais bu la tënkee yedd la. ñoo ah. ñëw place force la loolu. bu ñëw woon tey Sénégal bi ko koy dóor. fii sax ñëwal mais avant man dëkk yow bu ne moo tax nga ñemee grand bi. dama ne lii la ci am pour dara xelu ay supporter ak xam nga ni maa moom kese bu ñu tëjee ci néeg su ma ne ko jaarale mu jaar. <laughs> wax yomb na lool. kii comédien la léegi waaye. dégg ma léegi. léegi léegi. bu njëkk la. mbër la waaye léegi comédien parce que yow comédien la quoi. ah waaw bala kii naa ko ndax nee nañ tëj su nekk mu koy wax léegi kon comédien la. waaw ñoom ñooy ñoom ñu wax man damay xaw ma ragal jàkkaarloo laay ragal ci góor yàlla. mais yow yow. lan ngay ragal ci jàkkaarloog moom lan nga. moom laa koy laaj ñoom laa koy laaj. ñoom ñu ngi nekkoon di ah? bu dem ba indi nerf bi. dégg bi. moo dafay di ay teel. waaw naa ko gaaree ne problème am la. caa caa caa kii bi beneen rek moom sax da koy may Cissé quoi. beneen rek moom da koy may Cissé. Eh. mais moom sax man xam naa. ban Cissé la may may. dama ne kii ban Cissé la ma war a may. moom xam na man xam naa. waaw dama ne ban Cissé la may may. xam nga xam naa wala man kii ban succès la ma may. ah nee na nee na nee na nee na bu nekkee di benn benn nag rek yow da lay may succès de. yow ban succès la may may. may ko succès. ah moo tax ma accepté bëri moom. dëgg la may ko succès. ah moo tax ma accepté bëri moom. moo tax bis bi dépassé leen ba ñuy Québec bu nekk bu nekk. yàgg nañ bëree yàgg nañ am signature mosul demee nii ñoom. mais li ma doon wax rek ci point de presse lay passé xam naa toujours mooy dépassé wax ku nekk ñoom jox rajo yàlla may incha allahu taala mais am nga adversaire yëpp yow Balla Gaye yaa ko doon fekk ne ko yow ma la jàpp yow Balla Gaye yaa ko doon napp di ko song ba bés ba ñëw mais tey dafa mel ni affaire bi dafa tourné booy bi mooy ñëw di wax. ama yébi mooy dérangé. ah ama yébi mooy dérangé. ama yébi mooy dérangé. non pourtant moom nag waa parcelle dañ koy kii de. gisoo tey gisoo ah gisoo tey ku tudd ku tudd eh, yuux na ama yi. way déranger li way déranger. mais lii lan la koy déranger. li way déranger bëggul ci moom lii dana déranger. ay bàyyi ma bàyyi ko wax bi muy wax <laughs> mais ba boobu léegi damay dégg waa kër Ama rek ñoo yëngu waaye waaye kër kër Modou dañoo toog rek waa yuuxu leen Modou Lo wax leen xaaral loo ah ah waaye wala boog ah déedéet kay Modou Lo Ama yee. acca jërëjëf jërëjëf jërëjëf dafa am à distance bi di nuyu sëñ Fall Nicolas di ko nuyu bu baax di nuyu yeneen promoteurs yëpp di nuyu sama papa Gaston di nuyu sama kilifa Birasel mi nga xamante ni mooy kilifa gi di nuyu ñaari champion yi di nuyu Modou di ko jox cëram ak wàccuwaayam di nuyu Ama suma frère doomu Pikine di nuyu Nicolas di nuyu yëpp waaw di nuyu journaliste yi waaye gis nga combat bu neex la combat amateur la combat ñaari borom jom la ñu borom fula borom fay la bu paree ñu ñafe parti de ñu ngi bàyyi fii si ñu yekk nii yéen ñaari suñ moom dafa leen ko ci seen play supporter yi xam ne tamit ñëpp ñoo bokk ndey baay waaw di ñaan am suñ moom dafa ko ndam la te ñaan tamit ñu bëri ko ci seen play rek kaf ak ñun ñëpp ñoo bokk ndey bokk baax a baax. maa ngi lay fay grand box di ziar képp ko fi teew di nuyu sama ma fekk jël nuyu di ko teg ci sama papa Manga di nuyu sama papa Moustapha Gueye di nuyu sama papa Khayre di nuyu képp ko teew di nuyu ñaari mbër yi ah muy Modou Lo bi à Ama Baldé maa ngi leen di ziar baax a baax bi ñu ko laaj di rafetlu li nga xamante ne moom mooy teewal vraiment kontaan naa trop euh, di leen ñaan ñaari mbër yi ah. vraiment euh, lii nii bu amee rek nañ fexe lamb bi yegg ci jàmm parce que nañ wax ak seen i parce que lamb bi ko xam waaw ci diggante grand contre petit parce que sama lu tax nga yàkkamti bés waaw grand contre petit la grand bu neex la waaw maa ngi ñaan yàlla yàlla def ko jàmm wax supporters yëpp ñu dal ànd ak dal tey ñëw ci jàmm supporter seen i le waaw Mari Thiandoum kaay nii. dafa ah, waaw xaaral. Ah, dafa am lu mu bëgg a wax. Ah, waaw li ma bëgg a wax rek mooy dama teew fii Koungheul waaye dama teew fii parce que suma papa Demba Ka moom ma invité ci bis parce que moom ñoom bëri yëpp lay jàppale mais dama am relation bu particulier ak man sama papa la sama lépp la maa ngi koy ñaan. la gendarmerie la ñu dem mu rafet. Gris Bordeaux salaamaaleykum. dañ leen tàcc bu baax a baax a baax. maaleykum kon nu nga ko waxee rek ñu ngi capitaine Diop euh, capitaine gendarmerie parce que boo xoolee service d'ordre bi yëpp moo ko respecté comme ça bi am na solo ah. am contentement trop euh, teew fii ah di euh, assistance bi fi nekk yëpp dafa am benn jëmm dafa am gis bu ma ñëw na ba dem te gisuma ko ko tudd Guy Marius Sagna muy nit ku ma respecté nit ku ma jox cër dëggub naa tuub naa ci dem na joxantewuñu loxo mu nekk benn patriote nit ku engagé nit koo xam ne wax dëgg yàlla ku ma naw waaw li nit ñi fi teew yëpp na ko werante amul ci ne Ama Baldé du xaar tey bu la sëkkatalee ndax gis nañ ne moom làmbam yëpp bu arbitre lay day waaxu miti la bu la sëkkatilee lan la fay fekk beneen bi mooy ñu gis ne yàgg na laa topp nga dem ba doon rawa des rek sa première sortie nga jëkk a dajeek moom lan nga nëbb ci biir ak lan moo tax nga nga def loolu Ama Baldé li ma koy wax mooy werante amul ci ne roi des arènes bi ci sa mag la ko jëlee muy Eumeu Sène maanaam da koo jëlee Pikine nga jël combat bi te dañ ne woon mbooleem lu manqué boo ñëwee danga nga mottali say supporters lañ la ñuy xaar ci bés boobu jërëjëf. macha allah maa ngi ñëw ci Palla xaaral ñu topp acca bisimilah Modou. waaw mu ni saa waay moom day day day day mam ñëw quoi bu ñëwee li muy fekk ah bu ñëwee xanaa fekk ma bind rek wala kuubu sax sax. <laughs> ah Amath dégg nga loolu. ah waaw. Ah, waaw yoru mbett bi ba pare non ñaari question la ñaari question dafa wax tamit comme yàgg na maa topp ah. ma jël roi des arènes sama première sortie ma jël ko su ma bëgg-bëgg loolu la woon xam nga dama bëri su may mag man ñii ma war a bëri ñooy su may morom sama bëgg-bëgg la woon bu yàlla dafay ma jël roi des arènes ma jël ci samay morom bëri ñoom sama bëgg-bëgg la woon moo tax ba ñu waxee moom hésité wu ma sax di ñaan yàlla man moom a ci dagg incha allah incha allah waaw naan sama supporter yi euh, tey lii dañ koy yàgg ko pour bëri Modou Lo di ci son premier combat kon ñoom di leen ñaanal rek ñoom taara bis bi rek ñoom ñëw peut na yàlla yàlla ko am jàmm yàlla ñu si borom defal jàmm am naa am naa benn laaj xaaral xaaral xaaral tonton Pala lii ko la tonton Pala bismillah yàlla wax xeet dool amiin buubs ñu yi yàlla leen yàlla may ndam amiin leen di

à 1586, il y a eu une longue traversée du désert. Tous les photographes étaient massés derrière les buts de Cheikh espérant immortaliser les buts égyptiens. Dans les buts du Sénégal, il y avait Cheikh À gauche, Pafal. À droite, Omar Touré. Dans la... Kobabi hein, s'est dicté par la marche de la reine. Ce combat également est dicté par la trajectoire de ces deux grands champions wax naa ne ñoom ñaar Modou fi nga laal foofu la dëgg bëreeg say mag il était temps nga dajeeg ñi nga xam ne yaa leen bokk génération ñuy say morom daje ngeen ci mbapat bëre ba naaw nga daan Ama Baldé waaye boobaak léegi da ngay yomb sa trajectoire di dem di dem tudd Modou ba tudd xarañ ba jël li tudd li ñuy wax roi des arènes jële ko ci kan Eumeu Sène Eumeu Sène dëkk fan ñu ne Pikine waaye Ama Baldé doomi Falaye Baldé l'enfant de Pikine di raam di la wër di la rëbb ni ay la ma naqari woon ba may tuut tànk bu ma màggee dinaa ko fay ñu ni ko ama sëll bi mu ne non sëll bi màgg na sëll bi léegi il est devenu kuuy te léegi sëll bi nga xam ne moom nga daanoon màgg na te bëgg na dajeeg yow la nga def magam lool la bëgg a fay ndax moom mooy porte étendard wala porte drapeau wala l'espoir de Pikine combat bi mënul yomb dëgg la ma mënul yomb dëgg la xam ama hmm. xam tempérament xam ne lu taxaw ci kanamam dina dox ci sa kaw ak noo mënti toll ak koo mënti toll ba muy dajeeg ki nga xam ne moom moo di euh, Malick Niang ñëpp dañuy woon way kurpañu Malick Niang moom ay waay bu ko dóoree waaye keroog yu yuuxu jib na fuñ ko foogul ku dal na fu foogul woon mu dal kon yaakaar naa ne xale bi ku ko woo ci xeex woo nga naar ci guuxu mu waaye Modou Lo dafa wóolu dooleel wóolu kurpañam Modou buy song day dóor Modou bu jàppee day dóor Modou boo leen jàppantee day kor di dóor te ku mu dóor nga xam ni jàmbaar dóor na la moo tax bu nee eh boo ma songee dama lay dóor ma wat nga wat mais Ama am nga problème Modou bu nee da lay dóor nga wat nga ni tekk tekkaaral yéen askan bi yëpp di leen xaar réew mi yëpp leen xaar fu ci da ngeen di daje ngeen ah, ah, mu avorté ñaari yoon ñu jàpp ko seen seen face à face mu mu mu avorté réew mépp toog caméra yépp tiim leen ngeen guy seddal ko guy non c'est pas ça on n'attend pas vous de ça affaire bi dafa war a tàgg amaye solo mu soomu balde bal moom loolu muy bamb jarul mu koy bamb xam naa ne day xam naa ne lu mu yàgg yàgg dañuy xeex maanaam moom jarul mu ma koy bamb sax jarul mu koy def sax sama xel. léegi mënul ñàkk. lekk na ay millions musul dem ardo musul dem ay millions taw xam ci a yóbbu ardo day dem. Modou nee na dem ardo <laughs> parce que waxu mbër lay wax rek Malick. waxu mbër lay wax wala li mu gëm lay wax. mbër la mbër la. mbër la waaw kay merci. mooy des fois micro yi tiim na nga kontaan di wax rek mais li muy wax moom sax gëmu ko. li muy wax gëmu ko dangay wax rek mais gubul xol bi loolu gëmu ko kii sañul xeex ak man. sañul xeex ak yow. non ama nee na sañoo xeex ak moom. vraiment kii doom nee la waaye bu taxee naan bëgg naa xew loo moom ñëw naa moom du wax kii comme ñu lay a ko am ah, ndax kii la bari kii ko yóbbu ardo day dem soirée ardo place <laughs> Omaro benn bakkan la des. ñaanal jàmm di la ñaanal tawfeex di la ñaanal sutura di la ñaanal xéwal. Eh, di wax na nag tey Boubacar. teewaay bi ñu fi teew tey mu rafet lool ñëpp di ko seetaan. xool yëpp seet dafa am nag lu ko sooke li ko sooke mooy lan man duma wax ci Demba Ka ndax li ngeen wax ci moom doy na sëkk ak barke mhm. mais équipe bi nga xamante ne ñoo ne ci ginnaawam di liggéey ak moom. di doon ay xale yu ndaw yu am jom am fulla am fayda doon ay sénégalais ñooñu laay gërëm di leen sant di leen félicité ba ma jógee ci ñooñu ma ñëw ci yow mii ñëw ci Pape Aline ñëw ci Cheikh Sarr xam ne li ngeen def ci bés ba mu taaru te kenn gisu ko muy suumara ay lii dafa am lu ko jiitu te yéen kenn mënu leen ci génne ba mu jógee ci loolu nag ma sant raay dolliwaat di ko sant dafa wax lu am solo sant mooy dafa metti lool ñu jéngu ko ñefe ko jàkkaarloog ñëpp xeex ko ba egsi tey fi ñu egsi metti woon na torop ñu wécci moom mu taxaw taxawaay bu rafet nday jaañ aw ma fayam moom it mu taxaw taxawaay bu rafet bala may dem ci ñeneen ñi ma dem ci suma famille ndax ba mu mettee dañu taxaw muy sama yaay di sama ñaari soxna di samay doom tey sama doom bii taxaw wili wili représenté famille bi tey hmm. dama koy sant di ko gërëm dama koy sant di ko gërëm di ko sant di ko gërëm ndax xale la Dakar sax ñemewu fa dem te tàgguwuma yor ay doom day ko sant nag Moustapha Gueye le tigre de Fass di le président de Sall ak ñi mu àndal ñëpp ndax Moustapha Gueye moom itam bi mu méttee musuma bàyyi bés bu ne mu ngi sama wet euh, di ñëw nag aussi wax dëgg yàlla ci président CNG ak ñi mu àndal ñëpp ak aklu làmb yëpp ak manga de bi fi jóge ak lutteurs yi fi teew yëpp muy euh, muy euh, Boy Niang di Lac de Guiers 2 sama xarit Tapha Tine Thiandoum ak non Malick Thiandoum moom euh, moom duma ko gërëm léegi xam naa ne ci kanam incha allah euh, di gërëm ñoom Meysa Ndiaye ñoo xam ne ñoo bokk Mbour commandant Thioune ak képp koo xamante ne mu ngi si teew waaw benn affaire nag mënu ko fàtte mooy la gendarmerie nationale vive la gendarmerie nationale. liggéey bi ñu def tey hmm. yàgg naa tëgg làmb quatre vingt dix ba comme ni ko Xaalim euh, Samb waxee Samb sànq indi naa fi àddu jamakul lu ne def naa ko mais sécurité bu mel nii tey mosuma ko gis maa ngi leen di sant di liggéey bi rafet na wax dëgg yàlla yàlla na yàlla taxaw euh, di wax nag aussi mënuma dagg aussi parce dama demoon ci lancé boobu Boubacar am na mooy li may wax parce que tey dafa am solo li may wax nii dafa metti woon benn moment di sant suma benn xarit sama mag di maître baabu Babacar Cissé un homme fidèle fidèle kooku amul lu mu deful pour man émérite un avocat exceptionnel di maître Babacar Cissé dama koy sant di ko gërëm qu'il vente ou qu'il neige il toujours été à mes donc kooku mënuma ko fàtte di wax nag ne Sénégal ñu ngi doon wax comme ni ngeen ko waxee làmb ji dina am du am face à face dina am du am loolu du ma ci tontu ndax ci gën a du teew ngay nataal leer na naan dama leen waxoon bële passé dama naa su ma bëggee mu am day am te suñu borom bi dara tëwul euh, kàttanal nañu ba affaire bi rafet nañu ama maa ngi lay gërëm di la sant xale bu baax la ak ñi nga àndal di Souleymane Balde Ibrahima Faye ak ñëpp ñi nga àndal. tàcc leen loolu waay ama waay. sant leen gërëm parce que man li tax ma lay sant xam naa ko yow xam nga ko. Modou yow dama lay sant itam ndax xam nga ne suma diggante ak yow ñëpp xam nañ ko waaye maa ngi ñaan combat bi ngeen jëm que le meilleur ku mën sa morom yàlla na ko yàlla may ndam waaw euh, yow moom maalaw du ma il faut ma sant la aussi parce que fam anecdote bu ndaw du ma ko fàtte damay dem ci benn dëj ñu daje ngay bëree ji sa oto paan xam naa ne fàtte nga ko yaa ngi koy fàttaliku waaw fa laa yem kon xam nga li tax li ma la bëgg a wax voilà donc tey euh, kontaan naa am naa gërëm naa la bu baax Pape Alioune gërëm naa la bu baax Cheikh Sarr yow aw ma sa fay nuyu laa la ma suma jigéen suma xarit Alima waaw di nuyu aussi euh, patron de presse yi nga xamante ñoo leen fi yebal muy Cheikh Niass di Bougane Gueye di Mamadou Ibra Kane lii dafa rafet dafa rafet liggéey bi yaatu ñëpp ànd liggéey te lii mooy Sénégal te ni ma ko waxee combat bi en direct lay doon ci télévision yi fii Sénégal parce que Demba Ka di campagne dañ ko jël bés bi jënd droit yi fii Sénégal jox ko Sénégal mais diaspora làmb ji pay per view la koy doon noonu la tëddee droit yi fii la yem biir Sénégal donc foofu lay dem di wax ne aussi làmb ji seen affiche point com moo ko nar a wone ci diaspora bi donc képp kuy jënd na nga dem seen affiche point com jënd ko foofu commencé nañ ko jaay na nga dem seen affiche jënd ko foofu di ñaanal Sénégal di ñaanal askan bi jàmm dañu dem nag te nuyu le président de la bi son excellence Macky Sall ak lu waay mun a wax ñun ñëpp ñu jiite moom la fi yàlla teg te yàlla def da nga koy nangu te yàlla mooy dogal yàgg-yàgg day dem keneen day ñëw dañ ko jaanal ñàmb jàmm boo xamante dina eggali ba lépp nekk ci jàmm làmb ji nag euh, Pape Alioune am na luñ ci nar ak yi te dinañ ko xamal askan bi ndax Sidi Lamine Niass dafa am fu ma jaaroon ak moom ñu tàmm di wéet man ak moom tey ma ànd ak doomam kon tey dina am njukkal boo xam ne ak sargal boo xamante dinañ ko ko defal incha allah li leen wax daal ne bés bi ñu jëm di le 13 mars dalal seen xel bu soogee yàlla nañ ci dem ak jàmm nañ ci dem ak salaam waa bu ñu yàq làmb ji waa Parcelles bu ñu yàq làmb ji man loolu lu ma leer la te amaa mi xam na Moodu xam na ndax waxtaan nañ ci biir Souleymane gërëm naa la sant naa la asalaamualeykum wa rahmatullah taala wa barakaatu. waaw ba dem du ñu toog fii ba dem te du ñu wax lu waral jotaay bi benn bi ci jiital di Nicolas Nkom l'homme des grands événements di ko ñaanal jàmm bi gërëm tamit dembaka bu baax a baax borom KP Sénégal rek ko ñor di ko wax Sénégal yëpp dañ koy yoroon jukkal dañ koy yoroon jukkal bu baax a baax. parce que signature bi waxoon ñu bari waxoon du am tey moo ñëw paye leen ko ak KP yi te incha allah làmb ji mooy ko nar a paye ak KP yi kon. sénégalais bu ne yoreel na ko cukkal parce que ku nekk waroon nga jënd paas dem di seetaan paypal bi wala yooyu noonu tey ñu payee leen làmb ji dañ koy ñaanal yàlla defal ko jàpp bi ba yéen mu am ci Sénégal yàlla mottali boobu moom vraiment mooy duñ toog fii de gërëmuñu ñu ñuy jàppale di jël parcelle 1 ba 26 parcelle 1 ba 26 waa Fandène sama dëkku yaay di gërëm waataay boobu baax a baax di nuyu père Birame bu baax a baax ak am di di nuyu monsieur le ministre Amadou Ba di nuyu Adama Faye bu baax a baax di nuyu père Cheikh Cissé borom ETM ah di nuyu Bamba Fall borom ndar responsable politique di nuyu monsieur Tine moom it responsable politique bu xombal nuyu sama boy Ousmane Sy ah nuyu Abdou Mbaye état di borom Pikine di nuyu grand agent ndoye point com di nuyu bokkum bu see Salima ah, di nuyu góor yu si Dieng sama doomu day ak ngañ ja sagana Diop ak Youssou Ndoye Papa Aline Ndiaye ah, di nuyu grand Habib Dem bu Sones di nuyu colonel Cheikh Tidiane Cissé di nuyu sama doyen boobu di Lora waaw ku ñu danga jum di am sata bu baax a baax di nuyu Khadim Fall transit di nuyu Esafrop énergie bu baax a baax a baax ci tirer père Ndiouga Dia Gunda ak sama mag ak suma mag sama mag sama mag muy Ibou nuyu waaru énergie yëpp yëpp kontaan naa bu baax nuyu Sénégal yëpp di nuyu génération xarañ xarañ famille xarañ moo ñu boole père Cheikh père Moussa Bak Moussa Andy Cheikh Oumar Andy culture moom it maa koy nuyu bu baax baax a baax incha allah di wax Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg yàlla may ñu tam fekk tamit gendarmerie ah parce que wax dëgg yàlla waa affaire yeggee fii ñoom it seen loxo mu ngi ci bu baax a baax ak yéen communicateurs yi major yi ak mbay lu journaliste yi ñooñu ñun daal ku lim tuum maa ngi sant ñëpp di gërëm ma nag xel day fàttu. ne mënu ma ko bu équipe nationale de football xale bu yaru moom dafa ma jël bàyyoo sàq la may wooyu du toog benn semaine bu ma yónneewul message bi waxtaan man ak moom te kooku dàquñu sax incha allah sargal ko ci combat bi mais nga baal ma àq dama am sama goro boo xamante ne mooy Amadou Séga Touré ñu koy wax boogaa moom laa àndal tey aussi dama ko fàtte woon maa ngi koy gërëm di ko sant di ko jox wàccuwaayam di ko nuyu di ko ziar voilà. Ama waaw dañuy sant yàlla bu baax a baax. sëgal sëgal di jaale ñu fi ñu fi coono nekk di jaale Abdoulaye bu baax a baax di ko ñaanal yàlla suñu borom xaaral ak amiin xam nga di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal ak waa këram ñëpp di jaale sama baylaat di ko ñaanal yàlla suñu borom defal jàmm di jaale Samba Sall bu baax a baax waa na ko yàlla dafa jàmm xam nga du gërëm waa Paris bu ma nekk su mel ni paa ah, yi si mel ni Babs Babs maa ngi bu baax a baax xam nga ku mel xam nga ku xeex ñun ñëpp maa ngi gërëm mafia xam nga maa ngi gërëm ah, maa ngi gërëm Moro gërëm Momadou di gërëm sama gars yi nekk ñëpp xam nga di gërëm suma Mamor maa ngi gërëm maam moom bu baax a baax di gërëm ami ami Gueye taalibe bi moom Alaaji Baara bi ami Gueye maa ngi koy gërëm bu baax a baax borom Grand Dakar xam nga gërëm di gërëm moo Thiam di sant ñëpp di sant ay Ibra xam na di sant Alaaji Mbaye di sant bëcc di sant ñëpp ñoo ànd ñu maa leen sant di sant Baye Mbaye Thiam bu baax a baax di sant kenn koo xam si ma la PAM Ngor Sousima maa ngi koy naan ma taxawoo bu baax a baax papa Ngor Sousima maa ngi gërëm jabaram Ndeela xam na di gërëm doomam mu xam ne xam na maa ngi sant bu baax a baax xam na di gërëm Papis moom sama fils la maa ngi koy gërëm bu a baax di gërëm Alioune Ndiaye di gërëm ñëpp di gërëm Pam ah, Thierno Ndomba maa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax xam na di sant bu baax a baax xam ne di espoir rek maa ngi gërëm ñëpp xam na di gaa di jaale nag cuun cuun borom Bordeaux maa koy jaale papaam bu baax baax di ko ñaanal yàlla na suñu borom ma taxaw bu baax a baax di ñaanal Aliou Fall yàlla na ko soxnaam bi na Aliou Fall maa ngi koy ñaan yàlla na ko soxnaam bi jig ñëpp ku si mel ni sama papa taxaw naa maa ngi koy gërëm bu baax a baax sama mag ma fayal ku si mel ni staff bi yëpp maa sant Sa Fandum di sant Malaw Seras di sant euh, Alaaji Mbaye di sant ceebu di sant njaw di sant ñëpp di sant ku si mel ni Soxo Balde Pogola Babacar Ousseynou Maane boo ñëwee àndal ànduma maa ngi sant bu baax a baax di leen gërëm di ñaan yàlla yàlla na fi jàmm yàlla kontaan naa bu baax jërëjëf ñëw leen taxaw nii ñu def